est dafa mel dafa am loo ci bëgg a wax de sa kàddu loo bëgg wax parce que ñu ngi lay gis yaa ngi teggi pour jàll. ah bëgg dox say soxla mënoo dox sa soxla nga mel ni ku nekk Gàmbi man man foogoon naa ni lii yaay jàmme doon dund Sénégal du ko mës a dund mais lii moom. yaay jàmme sax dee na. moo fi jóge moom dina fi jóge parce que lii mu def teg ko fenn. liir bu doog a juddu nii sax boo ko yeew ni ko lu Sonko def mun la deful dara. kon yow la déggee dafa mel ni dafa mel ni li Sonko def euh, kii la complot politique moom la mais bien sûr loo jëm sa laaj loolu la bëgg koo am la moo tax ñu jaara ko fi mais duñ ko am duñu mës a am Sonko. léegi lan ngay wax population ban message nga leen di lancer. bi dañoo war a génn dañoo war a génn taxaw pour suñu doom yi ñëw ak suñu sët sëtaat yi ñëw parce que liir bu fekkee ne seetaan nañ ko. tey ji États-Unis bu fekkoon ni ñoom dañ ko seetaanoon kon ma ngay nguuru waaye waaye lan lan lan moo dëgër ba ñu mën ko buddi sànni fecc a xaj ki war a toog toog parce que peuple bi dañoo jug li war a jug jug waaye doo doo rek lu la neex def. maanaam rafetlu woo ko benn yoon daal. rafetlu ko kenn rafetlu wu ko ku génn rafetlu wu ko ku génn rafetlu ko ku toog rek kan moo liggéey. kan moo liggéey kan moo mën a dox soxlaam fu mu ne nii kenn pourquoi ndax la ndax Macky Sall benn bakkam fu mu ko teg xale bi day dem xale bi day dem merci maman ah gars yaa ngi foofu. yow nag waroo ko moom mi moom mi moom mi policier la koy gis noonu waaye dafa civilu ànd ak gars yi ci biir conteneur allé ñu ngi toujours fii ci centenaire en face ambassade Mauritanie bi ci euh, allé éboué boo seetloo tey ji force de l'ordre yi ñoo ñëw di may population bi ndox ñu naan di may journaliste yi ñu naan kon ça veut dire que Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar mais fii métti na lacrymogène tali yi yàq nañ ko vraiment métti na trop. caméraman baa ngi jooy reportrice baa ngi jooy ñun daal sonn nañ retourné waat ñu ngi retourné waat vers ci monument waaw blessé bi moo ngi noonu civil la blessé bi si policier la bokk mais civil la ñoom ñu ngi retourné di dellu moo yor sol capuchon bu giri bi noonu buñ seetloo ni moom civil la sànq bokk na ci ña nga xamante ni ñoo jàpp mécanicien bi dafa mel ni kon blessure bi ñoom dañ ko préparé parce que ku ñu ku ñu signalé la ni ni solul tenue mais ñoom xam na ni civil la ci ñoom la bokk blessé nañ moo ngi noonu mi ngi noonu ñu ngi koy yóbbu ñu ngi retourné policiers yi ñu ngi retourné di ñëw yaa ngi gis ni ko deret bi sangee gis ngeen ba tey de ba tey les aléas du direct moo ko waral jafe-jafe yi ngeen di gis yëpp ngeen comprendre ne xam ne dañ leen bëgg a jox image de qualité bëgg leen a jox lépp li nga xam ne moo xew fii ci biir centenaire kon nag mbokk yeeg xarit yi voilà gis ngeen gis ngeen les forces de l'ordre ba tey ñoo ngi fii suba ba ngoon ñi ngi nekk di jàmmarloo ak xale yi di éviter gis ngeen am na ci ay civil ñii di sànni ñëpp ay civil policier lañ ce sont les civils de la police gis ngeen ba tey gis ngeen xale yi taalaat nañ ay ay pono xale yi taalaat nañ ay pono ñu ngi continuer di sandi ay xeer gis ngeen y yi lancé la lacrymogène yi te kenn mënatul xool suñu bët yi lacrymogène yi vraiment métti na mais yaa ngi gis policiers yi suñu ginnaaw noonu ñuy daw di pourchasser xale yi xale yi ñoom ñi ngi continuer di jël seen ay xeer di leen sànni ñoom ñi ngir ñi ngi riposte di sànni seen ay lacrymogène ñi ngi leen di dàq nag tey tey centenaire fépp nii fépp dañ koo dañ koo dañ koo encercler benn nit benn oto mënta dem benn oto mënta dikk mooy ñi ngi ñaan nag population bi ku am loo xamante ni danga koy def lu mën a xaar nga bàyyi ko ba suba nga toog sa kër parce que fi nekk nii moom metti na nit ñi oto mënul jàll dara mënul xew waaw policier yaa ngi reculer ñi ngi reculer ñi ngi reculer xeer yaa ngi saf ñi ngi dugg ci biir ñi ngi dugg biir côté bi noonu côté face bi policier yaa ngi leen di yaa ngi nii ba tey continuer di jàmmaarloo ak euh, policier yi gis ngeen de ba tey ñoo ngi nii mënuñu sax continuer wax wax bu normal ndax lacrymogène yi ni mu mettee <coughs> ah ngeen jégal ma ko ami internet les aléas yu direct moo ko waral gis ngeen gis ngeen fumée bi li lépp lacrymogène la <coughs> ngeen jégalaat ma ba tey xuloo baa ngi nii ba tey gis ngeen de gis ngeen lan moo metti lan moo la metti soxna si lan moo Présente-toi d'abord. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Comment vas-tu? Ça va? la de nu bàyyi Ousmane Sonko. ndax parce que problème bi ndax ndax yow parce problème bi euh, suñu bàyyi woon Ousmane Sonko mu jaar fu mu waroon jaar problème bi du am. xeex bi du am. waaw. metti na nu torop ba kanamu yàlla ndax parce que lii bëggee wun ko woon nii bëggee wun ko nii waaw man duma dara soppe Ousmane Sonko laa kese mooy ma bëgg réew bi am jàmm loolu suñ ko defoon avant problème bii du am xeex du am dara du am jàmbaay am ndax parce que ñun jàmm la bëggoon comme te may nunu nag jàmm nag nanu dem at nag suñu kanam ah dafa nekk traîné wul de dafa nekkoon si yoon bi ñu di ko nee jaaral fee bul jaar fii problème bi yëpp ñoom ñoo ko indi wante du Sonko du ay militant man Sonko dama ko bëgg sama soppe la waaw lii xaru la lii kenn du ko foowee ba boo xamante ni daal boo may déggal wala ngay dégg sama kàddu waaye li may wax mooy bu fekkoon yaa ngi sa kër bu fekkoon am nga foo war a dem. bi nit mënu fi jaar oto mënu fi jaar oto xalaatu ko te mbedd mbedd kii centenaire yëpp nii la mel li ko dalee Colobane vers centenaire yëpp oto mënu fi jaar dangay gis oto yi dañuy teggi kenn mënta dem kenn mënta dikk tellement yàq nañ tali bi yàq nañ tali bi waaw mi ngi nii ñu ngi ci di biir force de l'ordre yi ñoom ñu ngi xaw a remettre juste en juste ba gis nga ni dëkk bi mel sant yi jaxasoo na maa ngi ñaan nag eh, xale yi ñu dal ànd ak dal te xam ne ay du yem ci bopp boroom coow li nag bari na lool lool bari na lool lool lool gis nga mécanicien boobu doon liggéey ñu fekk ko fi mu doon liggéeyee jàpp ko waaye tamit bi ma wax ak policier bi daf ne ma tey kat boo gisee ni dëkk bi mel war ngaa dem toog sa kër te xam ne liggéey xaju fi tey te loolu it boo ko xoolee dëgg la boo xam ne war nañ ci mën a bàyyi lacrymogène yi dafa mel ni saf na ah, saf na torop torop torop suñu bët yi mi ngi jooy mënatuñu noyyi mais comme population bi moo ñu soxla rek dañ leen koy jox gis nga force la l'ordre yaa ngi daw ñu ngi attaqué ji sëriñ Mansour mënatuma xool sama bët yi muñal muñal muñal soxna Ndate Ndate Saliou muñal rek te xam ne liggéey bi moo ko laaj kon nag ba tey gis nga de gis nga policier yaa ngi noonu ba tey waa policier yaa ngi dem di leen pour sase ñoom ñi nga xamante ni ñoo yor ay xeer di leen ko sànni ñi ngi leen di pour sase mais xale yi ñi ngi gën a violent ñi ngi sànni xeer lu ñu mën ñi ngi jël seen force bu ñu am yëpp ñu ngi ko ciy joxe waaw vraiment lii metti na tàng na waaw ci biir gis ñoo xam ne dañu civilu dañu mel ni ñoom dañuy manifester wu alors que ñoom du ñu ay manifestant waaw ñooy rek policiers yi ñoo nekk noonu di sànni seen ay lacrymogène ñoom population bi ñu ngi xaañ ay xeer ñu ngi encercler fii partout am na ay lacrymogène partout waaw policiers yi ñu ngi def toujours en bloc ñu ngi dem di di pourchasser ñi nga xamante ni ñooy sànni xeer yi waaw ñoom ñëpp ñu ngi riposte takk der yi ñu ngi riposte ñoom ñëpp ñu ngi def benn block benn bloc ñoom ñëpp ñu ngi ñu ngi riposte di sànni seen ay lacrymogène waaw fii ci centenaire dañ ko encercler tey amul benn yoon foo jaar tey jii foo jaar rek dañ ko encercler am ay bloc policiers yi fa nekk ay auto gendarme waa GIGN ñëpp ñu ngi fi. waa xeer yi moom métti na xeer yi métti na trop ñu ngi nii di reporte mais dañuy daw ñu ngi nii di ñu xaañ ay xeer ñu ngi ñuy xaañ xeer léegi lañ ma xaañ problème pour wàcc dem ñibbi mais amuñu l'obélisque jàkkaarloo entre policiers yi ak euh, militant sonko yi ak sonkoiste yi ñu ngi fi di xaañante ay xeer policiers yi ñoom ñu ngi dem di jéem a riposter ñi ngi def groupe di dem ñi ngi dem vers vers ñi ngi dem ñi ngi dem vers militants yi riposté ñi ngi dem mais toujours partisans yi ñoom ñi ngi continuer di lancer seen ay xeer policiers yi ñi ngi ne def en bloc ñi ngi dem boo xoolee fii si l'Obélisque policiers yi dañ ko def benn genre kii waa gendarme yi ñi ngi riposté ñi ngi riposté ñi ngi nekk en masse def benn groupe di riposté waaw ñi ngi sànni lacrymogène retourné waar nañ delluwaat nañ benn distance su 2 mètres population kii si. yi ak xarit yi ci biir MTV Sénégal gis ngeen comme niñ leen koy defalee saa su ne ñoo ngi nii jàkkaarloog euh, population bi nga xam ne ñoo wàcc fas yéene jàmmaarloog euh, force de l'ordre yéen a ngi gis xeer yi niñ koy sàndee yéen a ngi gis ba tey force de l'ordre yi def bloc fas yéene jàmmaarloo ak xale yi ba tey nag euh, dëkk bi mu ngi tàng jaxasoo xale yi. taal pono di sandi di yàq di toj lépp ndax euh, seen euh, njiital Pastef bi nga xam ne mooy Ousmane Sonko jàpp biñ ko jàpp naqari leen gis ngeen xeer yaa ngi nii aywa ah, waa gis nga ba tey mi ngi nii de mi ngi nii de risque yi nga xam ne ñu ngi koy jël ngir bégal leen ngir bégal leen xale yaa ngi nii gaa yaa ngi chargé waat gis ngeen gis ngeen xeer yi tey ji metti na policiers yi indiwaat nañ ay lacrymogène duy nañ seeni i ba mu fees dell ay lacrymogène fas yéene jàmmaarloog xale yi mbokk yi ba tey ni ma leen ko waxee rek MTV rek nga mën a amee en live direct bi gis ngeen gis ngeen gis ngeen de ba tey xoolal ma xale yi rek ni ñuy sànde ñun ñi sax sunu ñi ngi risqué suñu bakkan waaye nag euh, jaral ngeen ñu ko yéen cher ami internet kon nag mbokk yi ñi leen di wax ba tey ku ci am farata booy dox nga dox ko ku ci am loo xam ne mënul ñàkk mun nga toog sa kër te xam ne dëkk bi jaxasoo na tàng na metti na lacrymogène yoo xamante ni moom lañ war a chargé ngi gis noonu ñoo ngi dóor xale yaa ngi daw xale yaa ngi daw waaw yéen ngi dégg de non dëkk baa ngi yëngu dëkk baa ngi yëngu. waaw ndate vraiment. waaw ndate gis nga de force de l'ordre yi ba léegi ñoo ngi ci xeex beeg xale yi. ñoom it ñu dara xale yi tamit taxaw gis nga de. gis nga de sëriñ li ñu seetlu fii mooy xale yu immature lañ ay xale yu ndaw ñooy sànni force de l'ordre yi. waaw loolu moo ma ci jaaxal ndate saaliw xale yu ndaw a ndaw am na. ku ñu jot a jàpp oh, am na ñu jot a jàpp am na ñu jot a jàpp am na ñu jot a jàpp. am na ñu ñu jot a jàpp ñu ngi koy intimider vraiment gis nga de gis nga de gis nga dara wóorul ci liggéey bi waaye yéen ami internaute jaral ngeen ñu ko. waaye ñun dafa mel ni ay mécanicien la ñi dañuy daan seen ay doole ñëwuñu pour def quoi que ce soit. gis nga de les risques du métier. mais kii mécanicien la. gis nga gis nga xàmmeetuñu kan la. gis nga xàmmeetuñu ku ñuy jàpp kenn xamul mécanicien la waa koñ bi ñi ngi naan mécanicien la koñ bi bi ci koñ bi la dëkk ça veut ñoom ñi ngi jàpp xamuñu ñu ñuy jàpp parce que ñëpp a jaxasoo en masse ñiy sànni ak ñiy liggéey yëpp policiers yi ñoom xa mënuñoo xàmmee kan ak kan la moo tax dañu obligé rek di jàpp Serigne waaw ñun ñu ngi signalé toujours ni ñoom kii nii mécanicien la fii lay liggéeyee ñëwul woon parce que ñu ngi ko gis mu sol en ñu ngi ko gis mu sol en tenue tenue mécanicien bu takk iwil ça veut dire que kon kii sànni xeer indiw ko dafa ñëw pour daan si dooleem. na gis lii xew fii bi yi dañoo ngi ah ah, militant Sonko yi ñi ngi sànni ay xeer ñi ngi riposté.